oustaz ñu ngi lay nuyu. Euh, maa ngi leen di fay nuyoo. di leen jaajëfal. Euh, bi ñu nemmeeku jamono yi daanaka sax yàgg na mais mu mel ni mbir mi dafay gën di doy waar mooy mbirum wujj Sénégal mooy euh, bi ñu ci mujjee nemmeeku mooy kaa ki nga xam ne moom mooy Xaadim Njaay ba gis na fu mu mujjee loolu ñu bëggoon xam exactement lan la ci diine wax. jërëjëf ci laaj bu am solo bi diine moom lu mu amut wala lu mu waxut amut. lu ci nekk wax na ci la ca gën lu baaxut la ne mu tere ko wujje su fekkoon lu baaxut la alxuraan du ko maye kon du may génn góor nga takk lu ëpp ñaar walla lu ëpp kenn waaye damay waxtaan ak nit ñi nag léeg dama naan leen ku nar a jabar danga koy nef ku nar a jabar danga koy nef c'est-à-dire bu ñu soree boo takkee jabar ba am moom ay 15 ans wala lu ko jege nga jékki-jékki dugg fenn waxuma ne baaxut waaye nee moo gënoon ndax jamono ji ngay dugg ci kii fekk na kële naagu na ay gone mag lañ yow mag nga boo duggee ci mel rek mën naa jaxase kër loolu nag du caagee dañu wax ne wujje baaxut déedéet wujje baax na yàllaa ko maye moo may góor mu takk benn teg ca ñaar mbaa ñett ba àgg ñeent sunu borom moo ko mayee léegi nag li xajam ci biir kuje gi du mooy yàqu kuje gi jikkoy nit ñi ñooy yàqu waaye kuje moom fa mu nekkoon rekk fa la nekk sunu borom xam na ne góor ñi jigéen ñi leen di gën a bari mu ne ji góor ñi ku ko ci man takkal masna wa sulaasa wa rubaa boo ragal ne doo maanu nag yemal ci kenn mbaa ab jaam su fekkee am nga jaam loolu mooy kujje ndax lii bu njëkk oustaz daan na am ragal kujje wala bañ ko ba mu jaral la faat bakkan déedéet daawul am bu njëkk loolu daawul am ndax booba suñuy jikko melutoon ni mel te bu njëkk dañ daan fayul ku tooñ léegi nag ku tooñ kenn du la fayul ku ñu kon kenn du la fayul léegi nit ki ñeme naa tooñ ñeme naa fayal boppam te ñaar yu benn baaxu ci bu njëkk bu nit amee jabar bu ko neexee ci ëllëg sa wala ci ëllëgaat sa mu amum ñaareel waaye yi daawul xew léegi nag su fekkee penc mi dafa am ñoo xam ne ni ñu koy mooñe mooy dañoo jàpp ne nit danga naan sama kenn sama nga xam ne sa jëkkër ji sax bu guddee tër si nga naan ko wor nga maak mooy nga maag bett nga maag yooyu su fekkee day am nga xam ne kii day jàpp na kon lii moom dong moo ko moom su boobaa jikko yàqu moo yóbbu nit ñi ñu àgg ba ci fii ñu àgg tey waaye faat moom du jëkkër lañuy faat mbaa jabar mbaa kenn faat ci boppam mu wërta am rey rey wërta am fenn bakkan yàllaa koy joxe neen nañ bàyyi ma jël ko moo tax saa boo ko jëlee tey ko rek bokkatoo bakkan yàllaa koy joxe moo tax nee na nañ bàyyi moom rek mu ko jël suñ ko bàyyiwoon moom rek mu koy jël liñ fi nekk dana am solo dana neex lool waaye su fekkee yàlla day jël nit ñi di jël ñoo ñu di jël la waxoon téel ma ci seen loxo yi jëlal ma leen fi ndax du duñ jëlati waaye nag doomu aadama nee ne duñ def noonu dañu bëgg ko rey rek bon nan koo téye ay ab diir nangam nangam daal di koy bàyyi te xam nga loi yi ni mu tëddee ni mu defee ne ko noonu su boobaakoon nit waxuma la rey jëkkëram waaye rey papam sax mën na ko ah alors euh, ci euh, islaam muy diine ki rey muy moo xam ku góor la wala moo xam ku jigéen lan mooy àtteem. jërëjëf suñu borom day daa wax ci alxuraan lu am solo dafa nekk ku rey te teyoo ko na nga jox ndàmpaay mbokki kañ rey bu fekkee ki nga rey te teyoo ko séqu leen dara ci àdduna bul joxe ndàmpaay waaye na nga goreel ab jaam bi mu ñëwee ba nga agsi agsi nag ci ku rey te tey ko mu wax nag ne ku rey te tey ko ak fayam mooy jëhannama yàlla mere na ko dencal na ko ay duma te am na dugg duma yu métti yu koy xaar donc loolu loolu mooy àtteb ku rey ci pénc bi su fekkee nag dañoo xam ne diw mi moo rey diw mi sunu borom daax ne reyal leen ma ki rey ñoom ñaar ñu ñëw ma àtte leen waaye nag gaa yi ñoo xam peine daal koy daw bu baax a baax jàpp ne peine de mort moom dafa dellu ginnaaw doomu aadama toolatul fu ñu koy reye léegi mais yàlla mi ko bind moom complexe wul ci wax na nañ ko rey loolu nag li fekk amut suñu borom dafa waat dafa wax ne comme walakum fil si xayatun lenn rek mooy tax dund gi kenn du rey mooy ko rey rey leen ko lu dul loolu nag rey mënu fee jóg moo tax ba bu set nga gis bu gën a garaaw dégg nañ fi ñu ne diw danoon danoon de laaj diw cigarette mayu ko rey na ko ñu ne bii garaaw naa kenn kay leb café lebu lañ ko ñu rey ko non bii moo gën a garaaw ñu dem ñu dégg ñu ne am na ku ren ku rey papaam dëgg boobu sànni ci teen ñu non bii moom moo gën a garaaw ñu dégg nag bi yoon kuñ ne dafa kos taal jëkkër muy tàkk des na beneen. Euh, oustaz waxu ndàmpaay nga wax sànq ñu jaar fa de beneen transition ci ki nga xamante moom mooy Cheikh Diop. te doon fële ca prison bu rëbës génn fa di laaj ay ndàmpaay jotul sotti mu dem fi nga xamante ne moom mooy euh, ci wetu gri palais de la république daal di fa taal boppam loolu it di beneen jiyee boo xam ne jamono jii nii xaw na ëllëm xelu nit ñi loolu lan la ci diine wax. waaw xeetu daal moo toll foo xam ne moom bu jikko yàqoo lu ne mën nañ koo def bu jikko yàqoo lu ne mën nañ koo def waaye atte yi war nañ lu ci góorgóor loo xam ne ñan ñuy indi fañ leen di attee ñu xam ne loo àtte boo ëllëgee da koy àttewaat loo àtte bu ëllëgee da koy àttewaat nga bañ a wut ci liñ lay àtteloo bu ci wut aw tur bu ci wut am-am waaye bu ci wut mbégteel kenn ñett yi saa boo ko defee jaay nga lu foor lu garaw suñ doon def noonu bu dina jeef ca barab ba dañ lay àtte nga xam lu xew tërale baa ñàkk laa tëral su fekkee daa am dañ laa àtte mu am loo xam ne li yaa ko moom loola lu yàgg-yàgg nañ la ko jox buñ ko yàggal sax dañ ko leen tafar-tafar daal la ko jox ndax doomu aadama bi moo gën li muy laaj waaye nag ki nga xam ne moom tamit mooy laaj li muy laaj laaj naa ko joxum joxuñuma ko bu mu tax nga jënd sa bakkan bi nag ndax xaru taxut nga noppalu adduna si moo dàq fa la ñu jëm su fekkee ne noppalu woo fa te bu tey baaxut suba mën naa baax bu suba baaxut gannaaw ëllëg mën naa baax ab jullit ab jullit day yëg ni adduna si ñaari groupe ñaari xaaj la adduna mii ak àllaaxira ma la te fii duñ fi yàgg fële la ñu yàgg moo tax lu ñu la mën a def rek xaru moom lislaam légalisé wu ko validé wu ko ku xas def rek sunu borom nee na def nga loo xam ne moom accepté mu la sawaraa ngi nii du la laaj luñ la def du la laaj luñ la wax du la laaj loola naqari xaru moom mooy dernier chance dernier sens wala dernier xalaat moom bu kenn def macha allah. oustaz ñu ngi ci laaj gu mujj gi euh, am na ñuy wax ne lii di gàmmu walla muy màggal Touba bidaa la loolu ñooñu lan nga leen di tontu. waaw alhamdulilah bidaa bu rafet la. adduna daa am ñaar ñoo xam ne dañu ne bidaa abu rafet amut am ñu ne bidaa rafet am na ñi wax ne bidaa abu rafet am na ñooy gàmm ñi ne bidaa bu rafet amut ñoom duñ gàmm li may leen conseillé nag mooy ñi wax ne bidaa bu rafet amut ñoom nañ bañ a gàmm rek ñi ne bidaa bu rafet am na ñu bàyyi leen ñoom ñu gàmm te fuñ daje nag bokk ndey ak bàyyi du dëgg parce que lépp rek ñu ngi koy def ci compte yonent bi ki ne bidaa bu rafet amut ci compte yonent bi lay jéem a def ki ne bidaa bu rafet am na ci compte yonent bi lay jéem a def ñun nag sunu réew dañ fi am ay mag yoo xam ne yal yàlla fayal ñu leen danoo teggil werante woowu ba demee maam suñ tubaa day wax ne taasimuhu bi sunnati yaquduna lil jannati loolu mooy daf ñoo bëgg a jàngal nun koy defee waxunu daga naag daganut daf noo jàngal nun nun koy defee ñu ñëw ko ci maam Cheikh Alhaaj Malik Si mu ne ala azimu leylal wiraati xisbatan ànd ñëpp ngeen gàmm te ngeen fexe pexe ba bu leen fa def lu xaraam léegi nag problème bi mooy comme ñoom waxuñu daga naag daganut maam Cheikh Alhaaj Malik maam suñ tubaa ñoom waxuñu loolu ñoom nuñ koy defe lan nu wax nun tam nan weesu affaire bu ñëw ci nun koy defe nu fexe ba nin koy defee dëppoog ñoom li nu wax rek mu jàmm na ñooy waaye nag su fekkee ñii duñ ko def daal di mere ñee wala ñii dañ koy def daal di mere ñii ku ci nekk di sànni sa morom xeer loolu nag moo dul jagal yëf yi loolu moo dul jagal yëf yi gis nga bu kër baay di lakk nga yuuxu ne sama kër baay ngi lakk bu buñ suñu technicien bi duyeeg paan di indi yow lay jàppale ki duy siwa yow lay jàppale ku duy satala yow lay jàppale ah ki la jàppaliwul nag mooy ki ŋàbbub gaas di ñëw kooku moom jàppaliwu la kon nag gàmmoo ngi noonu wax dëgg yàlla ñun war nañ ci mën noppalu macha allah ñun suñu réew yi euh, ndax mag ñi fi am dey dañ nañu réer te raw ñu bari mag ñi ñu am fii dañ nañu réer te raw ñu bari mooy maam Cheikh El Hadj Malick mii maam Sëriñ Tuubaa mii euh, Cheikh Islam Hadj Ibrahima Niass mii ñoom Seydina Limaamu ñii ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen. ñoo ñu am ci mag de dañ nañu réer te raw nañ ñu bari kon nag bu ñuy def am mbir ne ñu taasimuhu bi sunnati kee nañu ala azimu lalawiati xisbatan ñu xam ne kon dañ ñoo jàngal nuñ koy defee ñu weesu werante wi waaye nag bañ di ci weddente nag jàpp nit dina ko yow da bañ gàmm kon nag yow yéefar nga wala kee day gàmm ñoo kon nag yow yéefar nga bu buñ àgg foofu nañ àgg rek ci bu fekkee masala la masala bu xilaaf ñee ngay def ñee ngay def ñay def nañ leen waayu nguur ñi def ñu leen waayu nguur ak jàmm na ñooy bu ëllëgee yow man xëyaamati sunu borom atte ñu ne ne yow lii nga ci ame woon yow lii nga ci ame woon wala amoo ci woon dara. oustaz ñu bàyyi la nga tàggatoo internet yi lay seetaan. maa ngi leen di eh, jaajëfal tey jéglu lu jub ci wax ji sunu borom lu jubut du moom man mieux waaye ay barab bi liggéeyukaay la yoo xam ne wanas nañ cee mën a wax ne yàlla nee na yonent bi nee na